ñu ngi war a jël ay aaya ñaar fukk ak ñett ci suuratul ahzaab ci suñu borom di waxee ne min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإن شاء الله نبالي أكبر أسوان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kon suñu boroom subhanahu wa taala mu ni min almuminina rijalun am na ci ñi gëm dey ay góor yoo xam ne sadaqu ma ahadu llah alayhi ñoom day dëggal nañu lañ diggante woon ak yàlla ca loola fa minhum man qada nahba am na ci koo xam ne nii matal na yéenéem wa minhum man yantazir am na ci ñoo xam ne ña ngay xaar wa ma baddalu tabdila te soppeekuwuñu ak soppeeku ñoom soppiwuñu la nga xam ne mooy ak soppeeku li yajzi allahu sadiqina bi sidqihim ngiree yàlla fay ñu dëgg woon te dëgg bañ dëgg woon wa yuazziba almunafiqina inchaa aw yatuuba alayhim te it mu mbugal naafiq yi bu ko neexee wala mu nangu leen ak tuub inna allaha kaana gafuran rahima sa borom yàlla day nekk na koo xam ne mooy jéggalaa kon bi ki yërëm ay jaamam wa radda allahu alladina kafaru bi xaysihim noonu la yàlla delloo yéeféer ya ca seen merma lam yanaalu xayra jotuñu benn yiw wa kafa allahu almuminina alqitaal yàlla fegal jullit ña lii di ak xeex wa kaana allahu qawiyan aziza sa borom yàlla nekk na di borom kattan gi nga xam ne moo not lépp wa anzala alladina zaharuhum min ahli alkitab noonu it la wàccee ña nga xam ne ñoo dimbali woon yéeféer ya te bokk ci ahlul kitaab min sayaasihim te la nga xam ne moom mooy seen tataja mooy forteresse bi ñu defoon mi ngi noonu seen dëkk ba ñu nekkoon ci biir montagne yi wa qazafa fi qulubihim ru'b mu sànni ci seen biir xol yi ak tiitaange fariqan taqtuluun benn kuréel ba yéen a ngi leen di rey wa fariqan wa taasiruuna fariqa di jàpp jaam beneen wàll ga ay beneen parti ba wa awrasakum ardahum noonu la leen donnloo seen suuf ya wa diyaaruhum ak seen kër ya wa amwaaluhum ak seen alal ya muy tool ya ak kër ya ak alal ji yëpp wa ardan lam tata'uuha am na yeneen suuf yoo xam ni tegagu leen fa seen tànk wa kaana allahu ala kulli cheyin qadira sa borom yàlla nag moo nekk ci bépp mbir ku ci am kattan mi ngi noonu mbokk démb ba tey mi ngi nekkoon ci xare bu metti ñu koy tuddee xare ahzab boo xam ni ni ko suñu borom melele rek doyoon na ci ñangaayam mu ne hunaalika butuliya almuminuuna wa zulzilu zilzalan shadida jullit ñi day nattuwaan naa leen te it yëngaloon nañ leen yëngal goo xam ne yëngal gu tar la nga xam ngeen ne tey boo demoon ci garab nga gësam ko yëngal ko yëngal gu tar lépp lu woyof dana wat ngi noonu loolu it da ngay gis ne gësam googu yàlla gësamoon garab ak jullit gi naafiq yépp feeñ ne gis ngeen borom boobu nag subhanahu wa taala wax seen mbir démb ak nañ doon jëfee lañ doon wax ak huduma ilayna ya ahla yasrib ak la ila axiri amma nag ba mu pare ci naafiq yi mu ne nag am na ci jullit ñi day ñoo xam ne ñoom lañ fasante woon ak ak yàlla ñoom day dëggal nañ ko te bokk na ci ñoom ñëpp keroog bañ dawee xare Uhud ba yàlla wàcc ci ñoom ay aaya la ñuy tuub rëccu ci xam ne dara dootul taxati ñu daw te booba it ñu ci bëri dañoo déggoon ne yonent yàlla bi faatu na ñu ne comme faatu na jeex na suñu borom ba mu leen di yedd bokkoon na ci ne leen waaw même bu Muhammad faatoon da ngeen di dellu gannaaw Muhammad yonent rek la buñ ko rey wala ñu faatu ko it yéen du seen yoon ci loolu te muy man ngeen di jaww ala kulli xaal ñu diggante ci loolu bokk na ci kenn ku ci siiwoon ku ñu wax Anas ibnu Nadr moom yàlla dafa dogal keroog xare Badr demul mu ne ah man de maa ngi nii demuma léegi maa ngi ñaan yàlla bi su ma dajalee taataat yii fi màkk yi yàlla dana xam lan laay jëf sunu borom yàlla dogal ñu dajewaat ca Uhud bañ dajee ca Uhud gis nañu ne xare Uhud ba tar ba yenn yéeféer yi daw ba yenn jullit ñi daw ca la xottee mbaru jaasi mooy fi muy dugal jaasi bi étu bi mu xotti ko ki nga xam ne nii mooy Talha dajeeg moom na ko wa Anas li ngay def lu mu doon mu ne ko maa ngi jëm aljanna te maa ngi waat ci borom kaaba gi ne ajjana mi ngi may xeeñ gis ngeen ca la dem duggee ci yéeféer yi di xeex di xeex ba bi xare bi pare ñuy wër ñu faatu sërëm moo ko mënoon a xàmmee ci jaara bu mu takkoon ndax caw jaasi yi nga xam ne moo demoon ba yàq yaram bi complètement loolee da ngay gis ne kon la mu waxoon moom dëggal na ko ñoom ñëpp it suñu borom yàlla tàgg leen ci loolu nee na am na ci ñoo xam ne man xadaa naxaba ay la ñu yéene woon ca mooy dem ba dee fi sabilillah dem nañ jihaat nañ ba dee nañ fi sabilillah am na ci ñoo xam ne ñi ngi nekk di xaar imma bis bu ñu dajewaat ak noonu yi ñu gañe leen dàq leen wala ñu dee fi sabilillah doonte ne suñu borom mu ne ñoom day soppi wuñu genn coppeete te loolu it mbokku jullit war nay moytu di soppi la nga xam ne mooy diine yàlla ji di soppi digi yàlla yi ndax bokk na ci ñu ne ci bari salaam wax lu tiit lu lool nee na yowmal qiyaama bu nit ñi dekkee yonent bu ne yàlla dana ko mayub déeg mu ne man sama déeg yowmal qiyaama dafa am yaatuwaayu dox weer ak guddaayam ay muy à peu près six cent kilomètres carré nee na ca laay woo jullit ñi kay leen ñu naan mais saxaaba yi ne ko nu leen di xàmme mu ne jullit ñi bu ñu ñëw yowmal qiyaama place yi ñu doon jàpp yépp dafay leer waaye mu ne du ma deñ di leen woo ba am benn mbooloo bu malaaka yi xaj ji jëmaleen sawar ma ne leen waaw ñii sama xeet lañ bokk ñu ne waaw waaye xamoo liñ def sa gannaaw ay ñoom baddalu wa ghayyaru diine ba nga fa bàyyi woon lépp soppi ne loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax te mooy képp koo xam ne da nga bëgg am ngërëmal yàlla ëllëg xoolal loolu la yonent bi alayhi salaam nekkoon ak i saxaabaam loolu rek mooy ngërëmal yàlla borom boobu nag subhanahu wa taala ne def na lii ngiree fay ñu dëggu wóor ci seen dëggu ga na am te ñooñu àjjana muy seen wàccuwaay amma naafiq yi suñu borom mu ne imma mu mbugal leen wala mu nangu leen ak tuub te yàlla mooy jéggalaate mooy yërëmaat lii mbokk mu lay wan ne buntu tuub yàlla tëjulu ko kenn ci jaami yàlla yi bu doon am na kum koy tëjal mooy naafiq naafiq mooy ki gën a bon ci kaw suuf ndax yéeféer bi moom daa taxaw fee ne man yéeféer la di la xeex ouvertement naafiq nag mooy yéeféer bu dugg sa biir ne la man julit laa ci mi ngi lay waajal foo ko yëgawul moo tax yawmal qiyaama suñu borom nee na da leen di dugal fa gën a suufe ci sawar te sawara fu la gën a suufe moo la gën a ñàng moo la gën a bon moo tax mu ne dañu nekk ñoom fii darkil asfali minan naar waaye nag tant que ñu ngi dund suñu borom mu ne mën na mu nangu leen ak tuub ndax bu ñu tuubee rek yàlla muy xafoo ca suñu borom yàlla it mu nangul la tuub rek doyut bala ngaa texe dëgg-dëgg mu dolli ci rahma rahma ba mooy lan mooy mu dox sa diggante nga dellu ca la taxoon nga bëgg alko waaye bu la yàlla yërëmul du sotti moo tax suñu bàyyi aadama ak suñu maam hawa gis nañu bañ defee njombe ngeen def bokk na lu ñu wax rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin yàlla ñun de tooñ nañ suñu bopp soo ñu jéggalul bàkkaar bi ñu def yërëm ñu ba bañee defetu lu mel noonu kon daañ bokk ci ñu perte moo tax lu bëri suñu borom di boole gafuur rahim baal la say bàkkaar yërëm la léegi nag suñu borom delluwaat ci xel mu ne nii la delloo yéeféer yi ca seen merma jotuñu benn yow te waxoon nañ ko démb nam demee suñ borom yónnee ni ci ñoom ngelaw jàpp nañ ne waa Quraysh jàpp nañu ne waa bani Quraysh war nañu leen waa bani Quraysh Quraysh jàpp ne waa Quraysh war nañu leen takk nañ seeni bagage di dem gannaaw buñ bàyyee seen dëkk campé Madina pendant presque un mois coono bu nañu daj ko fa ñi ngi dem benn bakkan sax reyuñu ko te dañ bëggoon a ñëw faagaagal yonent bi ak saxaaba yi ba lislaam fay ci kaw suuf waaye yàlla subhanahu wa taala moo leen delloo ca seen mer ma ñu ànd ak mer dellu amuñu benn yow suñu borom it waxaat wa kafa allahu almuminina alqital yàlla moo fegal jullit ñi ba xeexuñu te ñu noonu yàlla fegal jullit ñi ba xeexuñu te loolu di xéewal bu rëy bu yàlla subhanahu wa taala def ndax bu doon dañoo dàq yéeféer yi waaye xeex na te keroog Uhud juróom-ñaar fukk daanu na ci ñoom loolu da ngay gis ne li yàlla def moo ko gën gannaaw ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne wa kaana allahu qawiyan aziza yàlla nekk ne aji borom kattan bu tedd soo xoolee ci benn ay bu gàtt bi li ñuy tuddee lafz jalaala mooy turu yàlla ñu ngi fi ñetti yoon rabb allahu kafa allahu kaana allahu lii moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon naa ci mosal jóge ci ay xareet yépp lu mu daan wax naan mooy alhamdulillah sadaqa waada ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده yàlla day dim dëggal na ab digam dimbali na jaamam moom kese moo dàq noonu ya mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala kon lii la wax moom la def ak yéeféer yi delloo na leen ci seen kéeféer ga fegal na jullit ñi ab xeex yàlla mooy borom kàttan lii it mbokk day wane ne yàlla moom nga xam ne nee na muy al aziz lim ñu woon mooy Amérique tewu ko ruus yi tëwu ko yéefar yëpp tëwuñu ko heure bu ko neex mën na fekk ayu yéefar yi heure bu ko neexee mën na fegal jullit ñi ayu yéefar yi te heure bu ko neexee yëpp mën na not yéefar yi comme nam note woon xeet yi nga xam ne moo leen jiitu woon ay lépp mi ngi dellu ci yàlla subhanahu wa taala ba nga xamee ne boo gisee borom xam-xam yi lislaam yi dañuy métitlu nekkul na état islamique yi dañoo amul armement na am amuñu ay armement waaye arme bañ jëkk a ñàkk mooy ngëm bu sell bu àndul ak benn bokkaale waaye jurit ñi bu doon tane ne bàyyi woon nañu bokkaale yi nekk ci ñoom bàyyi caaxaan yi nekk ci ñoom ñoom ñëpp ñu àndoon gëm yàlla ca doyloo yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne kattanu yàlla nga dàqoon yéeféri démb kattan googu it ñu ngi fi ba tey kattan nga nekk ci yéeféri ci moom la jóge yéeféri yooyu ay jaamam la ko moo leen bind ca moo leen di dundal heure bu ko neexee moo leen di rey kon loolu mooy mooy mbir rek ba nga xam ne ne bokk na la borom xam-xam yi di wax ñu wax tey jihaad tey jihaad bi jiitu mooy ñu jàngal nit ñi lan mooy tawxiid jàngal leen delloo leen ci njàngaleem doxalinu yonente bi waaye jihaad bi dëgg-dëgg mooy yar leen ci dañu def ba yar suñu ndaw ñi ci ñu gëm yàlla ca dëppoog sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na bu ñu dajal woon mille milliards de bomb te fekk ne jullit ñi ngi nekk ku nekk naan yaa cheikh nangam keneen yaa suñ nangam ñàpp xéwal bu ñëw keneen dafa def ku dul yàlla fu ñu demee dañuy dàq rek loolu kon di mbir boo xam ne bu jara leeral la suñu boroom bàyyi wa mag waxoon nañu leen démb ne ñii di waa Bani Qurayza di yéef yéeféer yi ahlul kitaab yi nga xam ne ñoom ñu ngi dëkk woon ci penku Madina ca côté fa féetee lu ñu lu war a war a doon bët saalum au sud mooy sud ouest de Madina fa la ñu nekkoon ay yahud en général heure bu ñuy dëkk dañuy dem fekk fu ay montagne wër ñu dëkk ci biir mu ngi noonu léegi ñu dem dëkk dëkk foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi waa Makka demee mu ànd ak jullit ñi dellu seeni kër Jibril alayhi salaam dikkal ko ne ko ah Muhammad da ngaa dindi say gànnaaya te mbokk mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon mbubb yu mu daan sol bi guerre amoon ay jaasi amoon ay xeej lépp lu guerre amoon da ko daan laaj lu tax mooy moom daawul taxaw ci kër ga rek naan gaa yi wow leen góor a waay te daan jiitu sallallahu alayhi wa sallam bal ali ibn bi talib radiallahu anhu mi nga xam ne moom mooy ali ibn bi talib radiallahu anhu bi nga xam ne dañuy wax jàmbaari góor mooy jàmbaari góor mooy nett li ne daanañ dem ci xare mbir mi tàng ba suñ digganteeg noonu yi niñ ci yàlla bi kese moo ciy dox kon léegi ñëw nañu jibril alayhi salaam na ko ah di ngeen wàcce seen i gànnaay ñu ne waaw ñu la ñun malaaka yi day wàcce wuñu suñuy gànnaay te suñu borom jox nga leen ndigal nee na nga dem ci Bani Qurayza te la yonent bi alayhi salaam woo Bilaal na ko mu nodd ñu nodd nit ñi ñëw mu ne nag bu kenn ci yéen jullit takkusaan lu dul Bani Qurayza bu dee ñu xam ngor masalan gis ngeen ngor ni mu isolé ci Dakar ñu mel ne rek ñu ne woon tey bu kenn jullit takkusaan fekk jullit nañ ci saaloo pare xëy na peut-être ay trois heures jot na trois heures et demi yonent bi alayhi salaam ne nag tàkkusaan ngi waaju jot waaye bu kenn julli tàkkusaan lu dul ci Bani Qurayza ay bu kenn julli tàkkusaan lu mu jullee ji ko ngor am sa saxaaba yi jóg gàdduwaat seeni arme ca mbokk xoolal koo xam ne presque un mois yaa ngi nekk ca la nga xam ne moom mooy ca force ya jaxasoo wa ak sa waa kër gisoo leen dem ba jàpp ne dal moo des suñu borom ne dele Bani Qurayza bi ñu demee masalan dem nañ ba yegg yoof léegi jant bi lang pour waaj a so am ñu ne ah jant baa ngi sori nañ julli tàkkusaan beneen mbooloo ne hey yonent bi dañu bu kenn julli tàkkusaan lu dul ngor ñee ne leen hey yonent bi mu wax loolu daa bëgg rek ñu farlu gaaw waaye waxuñu ñu bàyyi waxtu yàlla bi ñu xëccoo benn mbooloo bi ñoom kóotil dem ba ngor julli fa tàkkusaan ñeneen ñoom taxaw fañ taxaw julli tàkkusaan doog a dem ngor léegi yonent bi alayhi salaam yegg si yonent bi sallallahu alayhi salaam yegg si bi mu yegg see gaa yi wax ko problème bi que ñun day dañoo dem ba place sangam jant baa ngi waaj a so ñu ne dañuy julli ñii ñoom ne duñ julli ndax yaa wax ñu dem ba ngor ku nekk wax ko li mu def yonent bi alayhi salatu wasalaam noppi waxu ca kenn ne la nga def jaajuwul loolee mbokk day tax ba léeg-léeg am ci yenn masala yoo xam ne doomu aadama yi bu dee tegtal biñ jóge ci yonent bi alayhi salaam benn la mais diggin bi wuute su boobaa la la war yow jullit nga xool diggin ba la ca doy nga jàpp ne bi muy dëgg nga jàpp ca amaa leneen la ca des nga bañ koo ayibal bokk na ci dóoru mooy natt bi ñu yàlla nattoo tey ci wàllu weer wi yonent bi alei salaam wax naa umma bi ne leen suumu li ru'yati su ngeen ko gisee woor leen ah léegi su ngeen ko gisee woor leen léegi nag dem nañ ba réalité wane ne weer wi kat moom mën naa feeñ ci côté ma Makka masalan dëkk arab ya waaye du feeñ ci dëkk Afrique mën naa feeñ Amérique te du feeñ masalan ci dëkk naar yi léegi ndax yonent bi mu ne wóor leen bu ngeen ko gisee kon bu dee gis nañ ko rek adduna bi yépp war a woor am na borom xam-xam yu ne ah kay adduna bi yépp war a woor am yeneen ñu ne déet yeneen bi ña muy waxal moo ñëkk a gis mais ña nga xam ne gisaguñ ko ñoom te seen gox yooyu mënuñu ko faa gis dañuy xaar ba man koo gis doog a woor ñu jël ci seeni position su ko defee bu dee mën a la ñama la ma ca tànn ma mooy ñeneen ñëpp nañu warandoo waaye nag du tax ma gis ku gëm leneen mën a kii kat dafa woor bisu it wala dafa wóorul bisu ramadan déedéet lan ca doy lan la ca doy daal ngay wax jëfe ko la ca des na mooy nga ñaan yàlla subhanahu wa taala boole nangul ñëpp loolu nag ci masala yu bëri lay am bokk la nit ñi wuute ci benn masala fekk kii day am dalil bu jóge ci sunna kii amu ko loolu moom beneen mbir la mais bu dee ñoom ñëpp ñoo bokk benn dalil sunna ñoom ñëpp ñu ngi daliloo benn wax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa juyoo ci niñ ko déggee su boobaa yow comme yow amoo darajay borom xam-xam ne bay xëccoog ñoom xoolal kala ca ay waxam doy nga jëfe ko ñetta rek nga ñaanal leen almuhim bu kenn julli tàkkusaan lu dul Bani Qurayza gaa yi ñëw yonent bi wax naa leen yahud yi dañuy dëkk ci ay tata bi ñëwee ñu tëj seen dëkk tëj dëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ak saxaaba yi wër leen nangu wuñoo génn nangu wuñoo génn yonent bi tëj leen foofu comme ñi leen waa Makka defoon ñu def fa diiru ñaar fukki fan ak benn ca la kilifa yi Bani Qurayza yi yónnee ndaw pour discuter ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te it guerre lu mu mës a nekk guerre daanañ nangu ay ndaw di demanteeg diggante bi ndaw yi ñëwee ne ñun dañoo bëggoon kii di Saad ibnu Muaz nga xam ne seen farandoo la woon ñëw àtte suñu diggante lu mu wax rek loolu la ñuy def. te fekk ñi leen jiitu woon ñu waa bani nadir nga xam ne dañoo lënkoo woon ak abdullah ibnu ubay bañ bëggee rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci histoire boo xam ne xaw na guddul ñu ci ala kulli xaal bëggoon nañu rey yonent bi alayhi salaam ba yàlla musal ko yonent bi ndar képp leen ba ñu woo abdullah ibnu ubay mu àttee moom def ne waaw nañ génn dëkk bi nañ leen bàyyi ñu génn ku nekk ci ñoom seet lu mu mën a war lu mu mën a teg ci gile moom mu yóbbaale ko loolu rek nag lañ ñu mën a yóbbu ah léegi noonu ñu dem ba suñu borom di nekk li ci suratul xashr amma Saad ibn Mu'az bi ñu waxee loolu yonent bi ne leen d'accord ca li ñu xamul ñoom waa Quraysh yi bi ñuy xeex bi ñuy ndar keppee Madina léeg-léeg mënuñu woon a jé jé jéggi pax bi waaye léegi ñu doon sànnante ay flèche flèche yooyu am na ci benn bu daloon ci Saad ba dagg sibitu loxoom bi. te ndeysaan jamono jooju chirurgie amul woon ba nga xamee ni dañ koo takkoon rek ne téewul comme si digg dagg la complètement ñu ngi nekkoon di sañe di sañe soit ne ay yàlla bu dee ne day da ngay dara desal sama dund dara bul ma faat mukk lu dul nga seral sama xol ci Banu Qurayza ndax moom lu gën a naqari ndax moom moo nekkoon kilifa waa Xasraj ñoom ñu siñante woon ay pacte ne lu mën a xew kenn du war sa morom ba pare ñu war ko léegi nag yonent bi yónni ne nañ ko jëlali Saad bi ñu indee Saad ibnu Muaz mu daal di yegg si waa kilifa yi Xasraj yi génn yonent bi alayhi salaam ñëw toog mu ne leen ndax yéen ñee yéen a neex Saad atte ñu ne waaw kon daal lu mu atte ci ñun d'accord nañ jàpp ne day atte la yéefir la naafiq ba atte wa Abdullah ibnu Ubay saat na leen ndax d'accord ngeen ne lu ma àtte rek da ngeen ko nangu ñu ne ko atakay ñun koy loo àtte nangu nañ mu ne côté yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ci ne jàkkarul ak moom waaw wàllu gi it lu ma àtte da ngeen ko def de ñu ne yonent bi ne ko loo àtte ñu def mu ne li ma àtte day mooy ñi mën a xeex ci ñoom ñépp dañ leen jàpp rey leen xale yi ak jigéen ñi ñu bàyyi leen def leen ay jaam yonent bi alei salaam ne ko atte nga atte ko nekk ca kaw juróom-ñaari asamaan yi te loolu muy wane ne mbokk suñu borom yàlla mi ngi ci kaw juróom-ñaari asamaan yi wa demen ko mel ne Ibnu Qayyim naan la boo delloo ca alxuraan ak sunna bi léegi ñetti téeméeri tegtal ma nga ca di lay wan ne yàlla mi ngi ci kaw asamaan yi saa njóogu mu sànq moomu sax di théâtre gis ngeen théâtre boobu ñu ko génneel fan yi passé mi ngi naan yàlla dutuma la julleel dutuma la woor kon xam ne moom yàlla nga ci kaw asamaan yi am déet gis ngeen doonte ne ne allah kulli xaal nee na moom tub na loolu waaye tub ga des na boo ko xamal ne dem ci rajo yi télévision yëpp wan leen ne loolu ñu ma doon waxal yàgg na tuub naa ko ca loolu dafa xaram ñu ngi noonu waaye la ma ciy teel rek mooy tey jii man di kat bee nekk ca baar ba kum mën a doon koo ci waxoon yàlla day xam ne yàlla li ci kaw asamaan yi am déet yahud yi nasaraan yëpp loolu lañ gëm ba baa nag mu am ñoo xam ne seen xalaat mi nga jóge ci hindu ya ñu dugal ko ci biir lislaam te mooy yàlla ngi fépp dem ba naan yàlla la yàlla nga ila xiri mi ngi noonu mu ne ko attee nga atteeb ko nekk ca kaw juróom-ñaari asamaan ya ci noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ordre saxaaba yi ñu dugg seen biir xaat leen képp koo xame ne nii gis nañ ne majoro go ñu teg leen de côté jigéen ñu teg leen de côté góor ña nga xam ne dañoo kii ñu rey leen lu tax loolu mbokk mooy yahud loolu dong la mérito ndaxte dañoo trahir te xam ngeen ne xatta armée yi ñu dund tey li ñuy tudde haute trahison loolu rey rek lañ lay def gis ngeen loolu yéen a ngi xatta Palestine gii am na leen ci arab yi trahir dañ ànd ak juif yi bu ñu leen jàppee rey lañ leen def takk leen ci ay photo kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na noonu la leen génnee ca seen dataja sànni ci ñoom tiitaange tiitaange boobu moo tax ba ñoom ñu nangu ne nañ dem léegi yonent bi àtte lu la neex ci ñun ndax mbir bi yàgg na tiit nañu mënatuñoo nelaw guddi mënatuñoo nelaw bëccëg lu ëpp ñaar fukki fan te loolu la yàlla waxoon moom loolu la yonent bi waxoon ne yàlla ko dimbale ay nusurte bi robo masirata shahr samay noonu bu ma leen dàndee un mois bu ñu mën a xeex dootuñu mën a nelaw guddi benn kuréel bi ngeen rey benn bi ngeen def jaam suñu borom mu ne noonu laa leen donnaloo seen tool ya te tamit da ngay gis ne noonu laa leen donnaloo seen tool ya noonu laa leen donnaloo seen alal ya ba pare yëpp yàlla ne jig naa leen yeneen place yeneen suuf yoo xam ne tegoogu leen fa seen tànk waaye yàlla am na kàttan ci leen ci loolu wax naa leen ne ba ñuy gas xunti ma yeneen ci bàyyi salaam dóor na roche bi ñetti yoon bu nekk mu ne yàlla wan na ma palay Paris wan na ma palay Rome wan na ma palay Yemen suñu borom nag mu ne tegagu leen ko seen tànk de waaye yàlla am na kàttan ci lépp te it alhamdulilah yàlla mu dina ko dugal ci moomee def lislaam mi ngi wax
يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله فاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا barakallahu fiik suñu borom mu ne yaa ayuha nabiyu ay yow yonent bi qul li azwaajik waxal sa soxna yi in kuntunna turidna alxayaata addunya wa zinataha su dee da ngeen nekk di bëgg dundug àdduna gi ak taaram fa taalayna umatti'kunna kaay leen ma jox leen ay xéewal wa usarrihkunna sarahan jamila ca bàyyi leen bàyyi gu rafet wa in kuntunna turidna allaha wa rasula wa daar al axira su dee nag da ngeen bëgg yàlla ak yonentam ak kërub alaxira ga fa inna allaha aadda lil muxsinaati min kunna yàlla day mi ngi waajal ñay rafetal ci yéen ajran azima lii di fay goo xam ne gu màgg la yaa nisaa annabi ee yéen soxna yonent bi man yati min kunna bi fahishatin mubayyina képp ku indi ci yéen ci ñaawteef woo xam ne bu ñu leeral la yudaaf laha al azab difayn des na ko fulal lii di mbugalam ma ñaari ful wa kaana dalika ala allah yasira te loolu day nekk na ci yàlla loo xam ne lu yomb la mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala kon day wax ne ay yow yonent yàlla bi waxal sa soxna yi gars yi yonent yàlla bi mi ngi noonu mooy président de la république bi nga xam ne moo jiite moom mooy nekk le général d'armée bi jiite armée yi mooy le procureur bi nga xam ne mooy àtte waaye it mooy borom kër bi nga xam ne ca la jullit ñi war a roye ana naka la ñuy nekkee ak seeni njaboot su borom mu ni ñeel na leen ci yonent yàlla bi lii nga xam ne mooy royukaay bu rafet amul lenn lu jullit di xool ci dundam lu dul am na fu mu ca mën a roye sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam te dama fàttali sunu mbokk ba njaga seen yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko mu ngi dëkkoon HLM Grand Médine fii la daan toog ak ñun ci tafsir mës na may nettali nee na ma dafa am benn sëram boo xam ne nii moom chrétienne la léegi nag dafa am jafe-jafe léeg-léeg ci wàllu sëyam heure bu dajeeg moom mu jox koy conseil wax ko ay mbir yu bëri mu ne ko un jour mu ne ko daal vraiment njaga man suñu labbe bi damay wax ak ñoom waxtaan ak ñoom mais yow conseil yi nga may jox dëgg-dëgg ñoom dañu ma ko jox mu ne ko dañoo bokkul ndax ñun dañoo sëy suñu yeneen ci sëy sa labbe nag sëyul ak yeneen tam sëyul yaa ngi def mi ngi doon yonent yàlla isa mi ngi doon sallallahu alayhi wa sallam moo gën sama ndey sama bàyyi waaye nag sëyul yaa ngi dégg labbe yooyu tamit sëyul waaw ki sëyul lu muy conseil bu sëy mi ngi noonu su defee loolu bépp borom jabar bu ci bàyyiwul boo meree dem ci célibataire yi daal tas sa sëy daal ne la waaw loolu ku ko mën a muñ fekk la ñuy wéy bu doon borom jabar nag dana la xam ne mun nga mépp loolu ala ku di xaal suñu borom mu ne ay yow yonent bi waxal say soxla te lu waral lii gis nga suñu borom yi nga wax alal yonent bi ubbi nañ Bani Qurayza jël nañ fa alal gi doy biñ jëlee alal yonent bi alayhi salaam këram dafa jafe woon kër ga dëkkuwaay ya melul woon noonu dund ga melul woon noonu boo gisee tey doomu aadama yi dañuy concouré jëm ci ay meuble concours jëm ci ay tabax li ko waral mooy nit ñi léegi loolu lañ xam waaye ki nga xam ne mooy ibnu musayyab nga xam ne nekkoon na imaam ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam papaam nekkoon saxaabi bi ñuy toj jàkkat yi di ci dugal kër yonent bi fa la ko fekk mu am lu ko métti lool mu ne moom su sañoon kër yonent bi kenn du ko laal dañ koy bàyyi génération yi di ñëw xam yonent bi yan condition la doon doon ay néeg yu xat mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam ay tabax yu yemamaay nga xam ne nii ay banti tàndarma lañ ko xaddeeg yooyu léegi nag yonent bi ñu commencé am ay ngañaay soxna yi nag ne ah waaw mais ñun jabari buur yi ñuy dégg kaza wa kaza kër gi dafa metti bu ñu añee tey lu ñu reer dañoo bëgg nag yow mi yàlla yónni nga soppi kër gi waay ñu ngi noonu te ni ñuy sol lu taaru te ñu def nangam nangam nangam. sunu borom yàlla subhanahu wa taala daal di wàcce aaye yi daal di ne ay yow yonent bi waxal ci soxna yi su dee àdduna dañ koo bëgg amul problème nañ ñëw ku nekk nga jox ko àdduna ba la ko ci gënal ba- mi ngi noonu ba matti akoon na te loolu itamit da ngay gis ne sunu borom moo ne bay fase jigéen fa matti ko woon na jëlal lenn ci alal nga jox ko mi ngi noonu ci loo xam ne nii day gis ne teqali koo ngeen waaye moo noowu leen gannaaw ba it ma bàyyi leen bàyyi bu rafet te itamit mbokk mi ngi noonu ab sëy dañ koo war a takk takkin bu rafet bis bu ñuy tas ñu tas ko tasin bu rafet ak a bari ñu tas tey ëllëg ñu àndaat kon bu dee tas ga ñaaw woon na bu ngeen àndaatee dana fa des loo xam ne lu ñuy fàttaliku la su ko defee kon mi ngi noonu àdduna ngeen bëgg kaay leen ma defal leen loolu amma bu dee ne nag bëgg ngeen ngërëmal yàlla bëgg ngërëmal yeneen ci yàlla allaaxira ngeen bokk ci jigéen ñi gën a kawe ngal la waay xam leen ne muñu leen te yàllaa ngi waajal ñiy rafetal ci yéen ay fay yoo xam ne fay yu màgg la ci biir aljanna te mbokk aljana fa la yonent bi alei salaam di dëkkee firdaws al aala am na fa place bu ñuy wax wasila mooy pale aljana moo koy dëkkee ak soxnaam kon muñu leen bu ngeen faatoo foofu mooy nar a nekk la nga xamee ne nii moom mooy seen wàccuwaay doonte ne it mbokk jullit ñuy gis ñu bari ci ay nit ñàkk a xam teggiñu lislaam day tax ba problème bu ñu am ak seen soxna rek daal di indi fitna sama mbokk bay laaj fajur ga yal na ko yàlla yërëm ngay nekk li ñoo xam ni fii ci vingt et un dañoo toog am na ñaari soxna aawe bi ak ñaareel bi waxtaan dépense bi day kenn mënut ci togg dara tey ah ñu diisoo ñaareel bi na waa xaral man kon danaa ko wa- wax sëñ bi bu ñëwee mu ñëw mën a ko daal sëñ bi dañoo bëgg daal dépense bi ngay jox daal dëgg dëgg dëgg mënatuñ cee togg dañoo bëggoon nga yokkal ñu ko mu ne ko ah dangaa xeeb su ma njël jëlee say bagage dem sa yoon nii la ko fase mbokk kooku bu jàngoon aay yi ndax dana ko fase bu ko fase dana xam lu muy wax ak moom su ko defee kon doomu aadama bi toujours war ngay am ay nooy négocier rawatina ak sa njaboot wala ñu nga jiite ci service ba wala lum mën a doon kaay leen bu dee da ngeen bëgg àdduna ma jox leen bu dee nag bëgg ngeen yàlla ak yeneen ci xam ngeen yàlla ngi leen di waajal bi gannaaw ba suñu boroom indil waa kër yonent bi ne leen ay yéen soxna yonent bi ku indi ci yéen faahisha te faahisha mooy ñawteef mooy na ngeen moytu alfahsha ki yàlla waxee inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar alfahsha mooy bépp bàkkaar bu ñaaw njaaru dana ci dugg wax ju ñaaw dana ci dugg ila axir kon te ne suñu borom aar na soxna yonent yi du ñu nekk di njaaloo kon fahisha boobu mooy ku fi indi wax du ñaaw yoo xamee ne ni dañ koy jëmale ci yonent yàlla bi ba loolee leer sunu borom mu ne dinaa ko def duubul mbugal yowmal qiyaama duubul mbugal naam ndax sunu borom subhanahu wa taala laa shakka ne mbokk doomu aadama bi ku nekk na nga toll noonu la sa fët di toll ñu ngi noonu waa kër yonent bi ñooy royukaay kon lu ñu def ci lu bon ba ñeneen roy ko ca loolee day gaaw a tasaaroo bari nag koo xam ne nii ma ngay xàppa ci meesu xeesal lu tax mooy sëriñam bi mu yaakaar jabaram ak doomam yu jigéen yëpp noonu la ñuy def loolu lay doon loo xam ne problème la su ko defee kon responsabilité boobu dafay doon loo xam ne nii lu yaatu la noonu muy dala yonent bi lay dalee képp koo xam ne da ngay nekk di wax ci diine war nga xam ni seen njaboot yëmuñoo ci yeneen njaboot yi daf lañ mën a nekkee royukaay bu bon ci biir société ba amma suñu borom nag mu ne loolu yomb na ci man lool mooy bakkaar bu ngeen fi def danaa leen ko duubal duubal mbugal mi ngi noonu cheikh islam ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعطيها أعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
sunu borom jazakallahu khairan sunu borom mu ni ba may yaqunut min kunna koo xam ne day dafa wommatu ci yéen lillahi wa rasuli ñeel yàlla ak yonentam wa taamal saliha daal di jëf lu baax nu'tiha ajraha marratayn daan ko jox yoolam ba ñaari yoon wa a'tadna laha rizqan karima te ñoo ngi koy waajal wërsëg woo xam ne wa tedd lay doon yaa nisaa annabi ay yéen soxna yonente bi lastunna ka ahadin min annisaa in ittaqaytun yemu leen ak benn jigéen su dee da ngeen a ragal yàlla falaa taxda'na bil qawl gàllawaay bu leen nekk di nooyal ci ay waxin fa yatma alladi fi qalbihi marad kon day dina mébét ka nga xam ne feebar daa nekk ca moom ca góor ñi wa qul na qawla maarufa de leen wax wax boo xam ne bu ñu xam la wa qarna fi buyutikun sax leen ci seen kër yi wala tabarrajna bu leen nekk di génne la nga xam ne mooy génnub taar tabarrujal jaahiliyatil uula nam ko doon génne jaahil ya nga xam ne ñoo jiitu woon wa aqimna salaa na ngeen taxawal julli wa aatina zaka te ngeen joxe azaka wa atina allaha wa rasulah te ngeen topp yàlla ak yonentam innama yuridu llahu yàlla day moom mi ngi bëgg di yuzhiba ankum rijsa di yóbbu ci yéen bépp sobe ahlal bayt yéen njabootu yonente yéen njabootu kër kër gi wa yutahhirakum tabhira mu laabal leen ak laabal waskurna maa yutla fi buyutikunna fàttaliku leen li ñuy jàng ci seen kër yi min ayati llahi wal xikma ci la nga xam ne mooy aaya yi borom bi subhanahu wa taala ak lu xereña la te mooy sunna su yonent bi inna allaha kaana latifan xabira yàlla day ne latif mooy ki nga xam ne mooy borom xam-xam bu jotali bi alxabi xabira kii amul benn gumpa donc ne latif dana firi kii am ñeewant mbokk mi ngi noonu bokk suñu borom ci maandu teem nee na yéen soxna yonent bi bàkkaar bu ngeen def danaa ko doubler doubler seen mbugal waaye tuyaaba bu ngeen defit bu dee ne wommatu leen ngeen ñeen yàlla li nga noonu mariama kaanat min al qaanitiin te mooy ñu wommatul yàlla nangul ko wommatul yeneen ci yàlla bi nangul ko ñu mel noonu day da ngay gis ne su ngeen ko defee ay seen xol nangu na loolu te it seeni jëf jëf lu baax ku mel noonu ñaari fay laa koy fay yowmal qiyaama loolu it moo tax seen daraja yi nar a kawe ñu nar a tiim jigéen ñi ndax ñoom ñaari fay leen yàlla fay suñu borom it mu ne maa ngi koy waajal wërsëg wu tedd doonte ne loolu yàlla ngi koy waajal jullit ñëpp ba ko wërsëg wu tedd àjjana rek la am xam naa tey oto limousine bee doog a génn ci usine ba di briller nga gis ko yéemu tey bu la yàlla may fanu guddi nga koy topp ba gis keroog bañ ko yóbbu à la casse di ko sànni ca mbalit ma day mujj dem poussière jeex la miss monde génn fii ñépp di ko xool tey boo mënoon a xam bu defee ñetti fan ci bàmmeel naka lay mel ila axiri kon adduna moom amu fi lu lu sax te lu tedd lu sax amma aljana nag mooy contraire aljana moom day gën a taaru di gën a neex abadan abadan abada gis ngeen sunu borom nag mu ne ay yéen soxna yonent bi yemu leen ak benn jigéen na am yemu leen ak benn jigéen lu tax mooy ñépp ngi xaare ci yéen ak mbaax kon lépp loo xam ne def ngeen ko ci mbon rek dana tax ba ñeneen ñi am ci prétexte te mbokk tey dama jële la soxna yonent bi mais xoolal tey nit ñi tuddi ibaada nga xam ne dañ ne ñoom ñooy bëgg a dund la yonent bi ak sahaabam doon dund suñ jigéen ñi ibaadu yi di muuru di def seen xijaab yi tey jii fukki jànq ci kon bi jumbux aw taka teg daawul mën nañoo ëmb yoone kenn niwu ci waaye xëy jigéenu ibaalu ba dañ koo ëmbal dana wër ndakaaw yépp am de ngi noonu loolu nekk nekk benn musiba su ko defee kon ñu xam ne doomu aadama bi suñ koy siintu ci mbaax su defee lu bon rek day indi scandale dañuy wax ne kii da xasanul basri rahimahullah dafa fekk benn xale ñu ngi yéeg ci benn bant di kayang kayang mu ne ko ay sama doom wàccal boo daanoo da ngay gaañu mu ne ko xëy imam bu ma daanoo garaawul de waaye moytul daanu de yow de boo daanoo daaneel dëkk bi yëpp ñu ne dafa fanaane jooy yendoo jooy ndax li ko xale bi wax gis ngeen ca effectivement loolu mi ngi noonu bari na musiba bu tasaaroo ñu ngi ko gisa ci njiitu diine non ñu ngi ko gis ci ay njiitu diine même bu dee def ko ci terewu ko sax musiba benn waaye bandkat mi ngi nekk fii ñu wër ko mu naan sama soxna yi ñu naan nuuru leen ñii yaa leen daan yóbboo ci sëñ diw ci wax musu cee wax dara yéen a ngi koy gis rajo yi télévision yi ngeen loolu mbokk ni mu nekk danger kon suñu borom subhanahu wa taala mu ne yéemu leen ak kenn su dee da ngeen ragal yàlla nag loolu mooy charte bi te loolu it bul jàpp ne doomu diw yéemul ak kenn soxna diw yéemul ak kenn charte bu mooy ne ragal yàlla comme baayam wala ragal yàlla comme jëkkëram waaye jabar yi wax koy ma nga leen nar a dem sawara ndax suñu borom ni ñu teqalitul na su dee da ngeen ragal yàlla du ngeen yem ak yeneen jigéen ñi non borom boobu nag ne ngalawaay bu leen nekk di nooyal seen ci ay kaddu bu ko defee góor ñi am na ci ñoo xam ne seen xol daa feebar heure bu jigéen di wax ak ñoom di nooyal kaddoom rek daan jàpp ne ah bunt bii de su ma ko fëggee mën naa ubbeeku waaye hey jigéenu Sénégal mbokk jigéenu Sénégal boo ko fekkee ay dëkkandoom ak collègue de service am na muy xàqtaay ak ñoom na muy reetaan ak ñoom wallahi duñ ko def ak seen jëkkër ca kër ga duñ ko defal ñi ñu bokkoon ndey ak bay loolu mbokk erreur la musiba la jigéen mën ngaa wax ak góori jàmbur amma tooñante yaag xaqtaay yaag saboota yaag nangam nangam loolu mbokk musiba la da ngay gis téere bi ñuy jëkk a jàng sa maam yi daañ ko jànge fii mooy dañuy wax ne daganul ci góor ngay nekk di xool jigéeni jàmbur di ca bànneexu mu boole ke wa tala zuzi bi kalaamiha sëñ sëñ sëñ sëriñ Ndiaye ñoom nga ko jànge woon di jalax dëri ba mooy su maam li ñu daan jàngal mooy daganul góor gi bànneexu ci kàddu jigéen ah loolu mbokk da ngay gis kon jël na naa nag kee nga xam ne moom daa soirée te lu mel ni jinne caméra yi yor ko mu jël ab micro di way di xaacu di way jigéen yéen góor ngeen topp di ko seetaan loolu ma ko jëlee ala kulli xaal mbokk nañu xam ne loolu jaaduwul mu am leneen lu garaaw lu ñu yàlla nattoo muy secrétaire wa ma adraka ma secrétaire yaa ngi dégg secrétaire mbokk julit mooy ki nga xam ne dañ koo indi mu nekk fii ci directeur am pour moom promotion ak yépp mi ngi ko at ci nu muy def ba directeur kontaan ci moom buy wax lem baat bi sukkar ko lem ko ah monsieur le directeur nangam nangam sama jaay dugg fii génne fii comme la sunu mbokk bay rajo Badio Gueye doon wax yàlla na ko yàlla yërëm daan wax daan wax secrétaire u Sénégal yi ni ngeen di jaamoo seen patron yi ñu ngi ko jaamoo seen jëkkëri ci kër ga kenn du leen jiitu àjjana yaa ngi dégg waaye mbokk da ngay gis na loolu la su ko defee kon mbokk loolu dagal na moo tax suñu borom ne waxul na yàlla waxul na bul wax daf ne waxul na qawlan ma'rufa dagal na nga wax ak góor lu jëm ci liggéey yi ngeen wax ko lu jëm ci jënd ak jaay ngeen wax ko lu jëm ci mbokkoo gi ngeen wax ko ila axiri ila axiri amma nag nooyal sa kaddu ah ci kanamam reetaan nangam nangam kakkante loolu moom islam da koo araamal ngi doon mbir boo xam ni ah dañ cee war a bàyyi xel bu baax ndax la nga xamee ne nii moom la mën a jur ci ay musiba yi sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax naka noonu it yow góor tamit war ngaa mën ci di dugg ci loolu suñu borom nee na am ñoo xam ne feebar dafa nekk seen xol ca ngal la waay yewit góor bul dem mukk di topp jigéen di ree kàddu ya nga xam ne moom lay wax ak yow borom xam-xam yi bokk ñu luñ ciy boole suñu jamono yi tey bu leen nooyal seen kàddu waaye bu leen nooyal seeni mbind ñu ngi noonu jeunes intellectuels yi rek nga xam nañ li may wax am na jigéen ñoo xam ne buñ la yónnee message message bi boo ko liiree rek war a mën a dem sangu ji jana ba yaa ngi dégg wax yooyu ay musiba la yoo xam ne tamit dañu xam ne la wax ji xaraam yi noonu la message bi di xaraame loolu la suñu borom yàlla jubluwu ci lu dul bañ fitna di am moo tax mu ne bu leen lem seeni kaddu waaye bu dee say bokk lu ci borom xam-xam yi wax bu leen lem na ngeen di bindee bu leen nekk di mot ci góor ca na nga xam ne noonu ngeen di bindee borom bi subhanahu wa taala taala rek daal di ne gannaaw loolu na ngeen di sax ci seen kër yi sax leen ci seen kër yi jigéen jëfewul aaya bu gën aaya bi gën ci moom aaya bi sax leen ci seen kër yi bu leen nekk di génn ak tabarruj mooy génn ànd ak taar comme naka jaahil yu jëkkee daan defee nga xam ne daawu ñu muuru te loolu mbokk jigéen amul lu gën toog këram amma jigéen di jaxasoo góor yi jàmbur loolu da ngay gis ne fitna bu bëri mën na koo am imma moom fitna bi dellu ci moom wala fitna ba dellu ci góor yi jàmbur yooyu ndax suñu borom mu ne gis nga am góor yoo xam ne seen xol feebar na caa nekk loolee kon da ngay gis ko mel ne Fatima radiyallahu anha daana wax ne li gën ci jigéen mooy góor ñi bañ kaa gis ah moom mu bañ a gis góor ña loolu di mbir bu ñu bàyyi xel doonte ne ne suñu borom utal nañu ay yoon yoo xam ne mën naa dem gisante góor ña waaye bi charte mooy na muur awram yépp ba mu mat gannaaw ba na téye kàddoom ca it na téye ay bëtam qul lil mu'minaati yaqdudna min absarihinna comme nañ ko jàng woon sóor tunuur ala kulli xaal suñu borom yàlla kon mi ngi noonu nañ sax ci seen kër yi waaye taxawal julli mi ngi noonu yéen soxna yéen bi taxawal leen julli joxe leen azaka te loolu itamit mbokk mooy yéen a war a jiitu ci jàmm yàlla kon bu leen nekk royukaay bu bon moom la yàlla dañ wax ci ay yi jiitu waaye nekk leen royukaay bu baax taxawal leen sax ci julli taxawal leen génn zakat te noonu lañ meloon radiyallahu anhunna xatta koor gi da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana itikaaf lenn ci ñoom ànd ak moom ci itikaaf ba ba mu fi jógee sallallahu alayhi wa sallam daanañ def ictikaaf ñoom soxna yonent yëpp sax ca jàkka ja ba ba fukki fan yi mujj yëpp ci weeru koor ngiree wane jaamu yàlla boo xam ne xeet bii dañ leen ci daan royee suñu borom yàlla it subhanahu wa taala daal di ne topp leen yàlla topp yonent yàlla yàlla ngi bëgg a génne bépp sobe bu nekk ci yéen yéen waa ahlul bayt ay njabootu yonent ba ca laaba leen ak laaba mbokk li la chaque ne ahlul bayt mooy mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bani haashim yi nga xam ne ñoo bokk ak moom noonu waaye soxna yonent bi ca la ñu bokk su demoon ci chia yu ban yu yooyu tamit da ngay gis na ñoom dañ ne aaya bi moom waa kër yonent bi mbokkam yi rek lay wax waaye soxna yonent bi bokkuñu bokkuñu ci waaye mbokk lu waaye dégg-dégg ji alxuraan xam ne kay soxna yonent bi la yàlla waxal fi gis ngeen xanaa tey dañ naan ndax ke ñeen dugg na ci am dugg ci waaye ñoom kay priorité lañ ci loolu kon dañuy gis ne ahlul bayt mooy mbokk yonent bi ak soxnaam borom bi nag ne fàttali ko leen li ñuy jàng ci seen kër yi ci aaya yàlla yi ak sunna yonent yàlla yi li ñuy jàng seen kër yi aaya yàlla yi sunna yonent yàlla yi mbokk kër yonent bi day alquran ak sunna ko leen alimenté bu dégg ba cëg ñun nag suñuy kër lu koy alimenté kër yépp ah di yéen a ko wax dama ko ma ko kër yépp indi nañ ngan dam télévision teg guddeeg bëccëg mooy wax ak njaboot gi am déet ñu ngi noonu te musiba bu rëy boo xam ne yàlla nattoo na ko tey islam nattoo na ko tey jullit ñi islam moom ngay mooy l'islam rek yàlla gën a nattoo tey jullit ñi tey bokk mooy télévision bi nga xam ne parents yépp indi nañ seen njaboot te ñii seetaan guddi di seetaan bëccëg théâtre yi gën a bon film yi gën a bon xabaar yi gën a bon ñu leen di intoxiqué guddeeg bëccëg bu weer wi dee nga dem indi facture bi fay leen courant parents yëpp ñooy def loolu wallahi daañu leen ko laaj yowmal qiyaama daañu leen ko laaj yowmal qiyaama suñu borom mu ne qu anfusakum wa ahlikum naara fegal leen seen njaboot li nga xam ne mooy sawara lépp loo xam ne day woote yëm ci sawara nga ko fegal sa njaboot képp koo xam ne mënoo am télévision boo xam ne yaa koy contrôler la nga xam ne la ca baax la njaboot gu seetaan la ca def nga nga téye ko nga lott comme man imam Sarr ni ma lottee man day mënuma ko moo tax man ma jël télévision sànni ca àll ba ku ko mën nag war nga ko def waaye képp ku mënul loolu xamal ne yowmal qiyaama sa télévision boobu yàlla dana la taxawal laaj la la nga xam ne moom ngay jëfante ak moom kër dees ko war a alimenté ak alxuraan ak sunna ñuy togg ak njaboot di leen wax lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ di leen saxal tawxiid di leen saxal jàmm yow da ngay dee bàyyi leen bés boo dee bàyyi leen ci sa jaan wàcc na ca it mën na am loolu am jeexital mais bu dee njaboot bi xamuñu seen bàpp la jël hey jiw kaay mu ñëw bitig ba hey jiw kaay defar ma lii hey jiw kaay nangam lii am maa doo toog a mukk sa njaboot nan ngeen yàlla ngeen ne yonent yàlla nee na loolu muy benn musiba ñaareel ba nga indi ab xërëm télévision tegal leen mu leen di alimenté guddi ba cëg da nga ko wax sakal mu borom fàttaliku leen ni ñu jàng seen kër yi ci aaya yàlla yi ak xikma ci sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne muy allatif dara ump ko ci ay jaamam mooy alxabir dara ump ko ci ay jaamam subhanahu wa taala yal na yàlla laabal ñu laabal suñuy kër laabal suñu njaboot.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة
jazakallahu xayra suñu borom mu ne kon inna al muslimina wal muslimat ña jébbalul yàlla ca góor ña ak ña jébbalul yàlla ca jigéen ña wal muminina wal muminat ña gëm yàlla ca góor ña ak ña gëm yàlla ca jigéen ña walqaanitiina walqaanitaat ña wommatul yàlla ca góor ña ak ña wommatul yàlla ca jigéen ña wassaadiqiina wassaadiqaat ña dëggu ca góor ña ak ña dëggu ca jigéen ña wassaabiriina wassaabiraat muñkat ya ca góor ña ak muñkat ya ca jigéen ña walxaashiina walxaashiaat ñay toroxlul yàlla ca góor ña ak ñay toroxlul yàlla ca jigéen ña walmutasaddiqiina walmutasaddiqaat ñay sarxe ca góor ña ak ñay sarx sarxe ca jigéen ña wa saa'imiina woorkat ya ca góor ña wa saa'imaat ak woorkat ya ca jigéen ña wal xaafiziina furuujuhum ñay wattu seen fay ca góor ña wal xaafizaat ak ñay wattu seen fay ca jigéen ña wa zaakiriina allaha kasiira ak ñay tudd yàlla lu bëri ca góor ña wa zaakiraat ak ñay tudd yàlla lu bëri ca jigéen ña aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima ñoom de yàlla ngi leen di waajal njëggal ak fay boo xam ne fay bu màgg la mbokk kon suñu boroom mi ngi indi fii fukki melokaan yoo xam ne nee na mi ngi leen di waajal njëggal di leen waajal ajjana yal na yàlla boole ñu ca ña ca jiitu mooy ña ko jébbalul jébbalul yàlla may nga xam ne sa bakkan bi sa alal bi sa njaboot bi lépp da nga koo war a delloo yàlla subhanahu wa taala ni ko góor ñi defe da ko jigéen ñi war a defe gannaaw bay dañoo war a gëm suñu boroom lépp lum ñu wax ñu bañ caa sikki sàkk gannaaw ba dañ ko war a wommatul lu dagan ci jullit yàlla digle ab dig ngay am loo ci teg naan waaye jëfe rek moo ci teg te aaye boobu lañ nar a jàng suba mi ngi noonu wommatul sa borom da doon góor la wala jigéen nangul ko ni fas yi ñuy tàggat nangul le borom gannaaw ba nga doon aji dëggu mbokk lislaam qualité bi gën a rëy mooy dëggu li l'islam gën a bañ mooy fen te américains yi bañ la ko l'islam bañ dëggu la yàlla bëgg bañ fen nga dëggu ci say wax dëggu ci sa lépp gannaaw ba nga muñ mbokk diine ji diine yi muñ la suñ borom waa àjjana li li leen di wax mooy li ngi noonu ulaayka yulaqawna tax yujzawna al-ghurfata bima sabaru suñu borom yàlla mu ni ñii taax yu kaw yi muñ gën mu ñëw a tax góor dañuy muñ ci jaamu yàlla muñ ci dogali yàlla ñu ngi noonu góor ak jigéen ñoo ci yem gannaaw ba suñu borom dañ ko war a toroxlu toroxlu googu da ngay gis ne danay war a feeñ ci sa lépp ci sa commerce ba ci sa sëy ba ci sa lépp doonte ne mu ngay gën a feeñ ca jamono ba nga xamee ne yaa ngi jullil sa borom di ko toroxlu ca loolu mooy nangul ko rek waaye it sarxe mbokk jullit mooy kii sarxe ñépp a war a sarxe yeneen ci bi alei salaam nee na même bu doon xaru tàndarma sax ñu ngeen woon ay kon doomu aadama mun noo ñàkk ñàkk ba doo sarxe looloo tax xatta koor gi buy jeex suñu yeneen ci alayhi salaam farataal ci ñun góor ak jigéen mag ak ndaw liir bii doog a judd tey sax nee na na sax ñépp lañ sax mooy li ñuy sax miskin ni ñu murum koor gannaaw ba woorkat yi alhamdulilah ñu fekk ci weeru weeru koor mooy ñiy woor na doon noonu góor lañu wala noonu jigéen lañu waaye suñu borom wax ñi nga xam ni dañuy wattu seen fay mbokk julit njaaloo ci bakkaar yi gën a bon gën a garaaw ci la bokk julit ngan la waaye moytul sa kemtaleel kattan Sénégal yi am na bakkaar yu ñu bañ koo ci ne masalan góor jigéen nga mu bëgg rey boppam naan sàngara dara jarul leen ko mais njaaloo moom moom naan attaay lañ yemel ñu ngi noonu waaye xam leen ne ci bakkaar yi gën a bon gën a garaaw la bokk yuy jur mbëggalu bàmmeel di jur mbëggalu àllaaxira gannaaw ba it la ko yàlla tëjee mooy ñuy tudd yàlla lu bari ca góor ña ak ci jigéen ñi mbokk zikrullah mi ngi noonu yonente bi alayhi salaam mu ne xalaat ngeen kaay ba wax leen li gën a màgg ci seeni jëf yi gën caa sell ca yàlla moo ëpp doole sabab lu ci wàllu naafile jihaat ak yépp ñu ne ko ah kay mu ne mooy zikrullah kon ñooñu di tudd yàlla lu bari fu ñu mën a toll sunu borom yàlla nag nee na ñi melokaanu melokaan yi day dinaa leen baal seeni seeni bakkaar seeni bakkaar ndax mbokk bakkaar moom mënut a ñàkk abadan bakkaar bu ñàkk dinaa leen baal seeni bakkaar te it maa ngi leen di waajal pay goo xam ne nii pay gu màgg la mbokk màggaay googu am na lu ñu ci yonent bi alayhi salaam wax nee na ki gën a tuutile li mu am ci àdduna mooy nguuru kaw suuf gii ngeen xam fukkam dana ko fukkam dana ko am ci nguur ca mooy ka fa gën a tuutile gannaaw ba daraja yi di dem ba nekk téeméeri daraja kon pay ga yàlla ne màgg na lu màgg la yàlla nañu yàlla saxal te lay tax ñu yoo pay googee wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain